ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci àdduna bi di seetaan ñu ngi lay nuyu ci turu Muxaddamatul Xidma muy daayira bi nga xam ne moo yor jumaa Tuubaa ji di ko taxaw ci kilifa yi nekk fii tey ji na ñu am mbégte lool ñëw tey jii dalal fi bi nga xam ne mooy jaraa fi réew mi euh, dëkk bi muy monsieur le maire bi nga xam ne moo jiite euh, euh, mairie bu Touba muy Abdou Lahad waaye ci loolu mu yabal fi ay nit ngir empêchement bu ko téye tax mu yebal suñu kilifa Serigne Cheikh Ibrahima Mbacké kenn ku nekk xam ko muy adjoint maire mu jiite délégation bi ànd ak Serigne Mourtada Lo ak Serigne Babacar Mbacké ak Serigne isaa Mbacké ak conseiller Serigne Alla Niang ñu ne nañ ñëw teewal ko fi ak ñeneen ñi bëggoon a ñëw ñëpp ak ñu bëri mën naa ci boole sax sëñ Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne moom itam ci conseiller yi la ba pare nekkaat mu xadimatu xidma comme ni ma ci nekkewaat di am fii ngir lan Euh, xool si liggéey bu rafet bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy liggéey ci lan ci jumaay Tuubaa ca tàmbali woon ku yàgg ba léegi sunu borom def muy gën di avancé di avancé ba toll fii mu toll tey ñu ñëwoon tey nag ñëw wër xoolaat ko wëraat ko seetaat ko gisaat liggéey bu rafet bi nga xam liggéey na loolu nag ñu invité woon tey ni ñu koy defee jékki-jékki invité nit ngir mu ñëw xool liggéey bu rafet bi ñu jël nag ne kon tey jii jagleel nañ maire Touba liggéey bi na ñëw xool si liggéey bu rafet bi nga xam ne ginnaaw bi nga xamee ne maire bi participé na ci ak taxawaayam ci jumaa ji nga xam ne kenn ku nekk rafet rafetlu na ko ndax maire Touba moom yemul ci kii bi dafa xam ne lépp moo ko jaboote mu am taxawaay bu rëy boo xam ne taxaw na ko fii biir jumaa ji loolu moo waral tey jii ñu ñëw ni ma ko waxee délégation bii ñëw waaye dañuy daal di jël kàddu gi jox ko sëñ Babacar Mbacke mu jot li li nga xam ne mooy kaddu yu jóge ci maire jóge ci mbooleem adjoint maire yi ak mbooleem képp koo xam ne ni bokk nga ci maire yi Touba parce que suñu invité maire yi rek ñëpp la ñu invité personnel beeg euh, conseil yeeg maire yi adjoint maire yeeg ñëpp la ñu invité ñi rek day délégation bu yëkkati rek mu ñëw teewe fii kon dañu bàyyi ak sëñ Babacar Mbacke mu xool am kadd yoo xam ne dana ko jotal ci turu maire dafay mel ne maag sëñ Abdoulaye bu sa moom dañuy daal di nekk taxawaay ñaari tànk moo tax muy mu xaddimatu xam ne niñ ci bokkee waaye nag ñu jox sëñ Babacar ku mu wax ci turam bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu la maire Abdoul Ahad Ka ak ci turu Serigne Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo jiite délégation bi di adjoint au maire Serigne Mourtala Lo Serigne Issa Serigne Alla Niang Serigne El Hadji mi doon wax léegi adjoint au maire Serigne Serigne Serigne Abdoul Ahad ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp. ñi ngi am mbégte bu baax maire nee na mi ngi am mbégte bu baax a baax ci teew gi nga xam ne moom lañu teew fii mu amoon yéene lool nag teew fi moom ci boppam waaye mu am ngànt ni ko signalé ji waxee léegi ak mboolem adjoint yëpp ñenn ñu nekk bëggoon nañoo ñëw waaye dañoo ñëw ba ci mujj gi rek ñu am ngànt ñoom itam waaye di wax rek ne fii moom ko fi ñëw ku ne dina xam ne wax dëgg yàlla liggéeyal Serigne Touba ci koor gi yéen a ngi koy def bu baax a baax soo wëree ba gis mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ñoo fiy doge ak ak jumtukaay yi ak toppatoo beeg yooyu loolu danga xam ne wax dëgg yàlla jàmbar ngeen lool. weer wi day weer woo xam ne Sëñ Tuubaa da ko fonk lool bayit woowu mu naan yaa gayra dayfin ata bi bishri wa madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi dégg ngeen ko bu baax a baax ku ñëw fii dina xam ne wax dëgg yàlla yéen a ngi koy dundal bu baax mboolem gan ñi nga xam ne ñoo fiy jaar ci dëkk bi di dem faneen di romb bu leen waxtu dog jotee ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te xay na fa ñuy ñibbi sori na ak mboolem ñi nga xam ne sax mën naa am xay na seeni ndogu demewul noonu su ngeen ñëwee ñëpp ngeen di yamale dalal leen tegal leen ay ndogu yoo xam ne wax dëgg yàlla bari waa na ñoo xam ne sax duñ ko am sax seen ay kër. kon nag loolu lu ama am solo la ci turu ak turu adjoint au maire yeeg conseil yëpp muy wax rek ne mbir mii mbir la mu am solo moo xam ni ñëpp a ci war a gën a jàpp ñëpp a ci war a gën a jàpp bu baax a baax ndax ku fi ñëw rek wax dëgg yàlla da nga xam ne li ñuy def am ngi solo jéggi na dayoo kon nag kàddu yi kàddu yi sant lay doon ak yooyu ngërëm bu baax a baax sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax ci turu ak ci turu Serigne Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom mooy moo jiite délégation bi am nañ mbégte bu baax jërë ngeen jëf yal na leen yàlla sàmm a taxawu leen ci barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. damaa xam ne lii lépp ñu am sëñ laat bi ñu woo ci ñaari fànn lañ ñu wooye woo nañu ci fànn mairie bi waaye nag ci fànn bokk gi bokk ñoom liggéey bi biñ ñëwee itam dañ ma ne dañoo bëgg nga xool liggéey bii suñ jëwriñ ji nga xam ne mooy Cheikh Amadou Mountakha nga xam ne lépp mooma moo tàmbali moo yeggale moo nekk ci dëgg bi mu xamal ko ne lu mu ñu digal li nga ci gis boo dee nga waxal ko boo leeral ko sa bopp. kon loolu itam dana baax lii ñun ñëpp ñu xam ne euh, sëñ mu daxaa moom kon nag si Abdou Lahad wax dëgg yàlla man xaw ma ne mbir mi egg si na fii waaye nag ñu ngi leen ci sant bu baax boo demee nii yàlla xam ne ne ba may jóge ci moom dama ko ne fii yéen laa jëm si. man bu xàdd ma xam ne lu leen fuy te ma ne ko ah, ñoom kat maanaam liggéey boobu nga lay liggéeyal ci kër ga boobu sax xamoon nu mu demee. moom laa ànd nag waa mairie bépp la mën a waa man ku mën a waa mairie Touba yi laa àndal ñëw jëm jëm fa ñoom ñu wooñu kon nag bu ñu jëmee dañoo gis ne dañ mën a am lu ñu mën a wax loolu rek laa bëggoon a yeggale ci sant gi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi